ñuy tedd sen neegi di nelaw ak sedd bi ku nek sangu sa mbaju jaamu yalla yi nek ci mbedd mi nak ken bàyyiwu leen xel ñun ñu fasiyene jog jaamu yalla si ñoom di len baye xel fuñ ñu nek 24 heures ñi ngi si terrain bi suba ba legi ñi ngi si terrain bi mënon nañu wacc dem sangu dem tedd ne amna na ñu toppatoo si beccëk bi mais dañ ne xaar ñu xol ñi ñuy dundé guddigi waaw li nak doyna na torop di jaajeufal ka urgent di jaajeufal association and taxaw ñu wéradi di jaajeufal nak wa jaayante ñi nga xamanteni ni ñi ngi jaayante ngir maladie luñ sol ñun nak lu gaay jaayante ñu nit luñ waxi ñu suul ndax luñ indi rek ñu solal leen dinañ leen sang di lañ leen solal te duñ baye mu sedd waaw fas yéene dem nak ba jeex tak tak tak inshallah rabbi di ñaanal malade mentali di wax ni yalna Yalla, indi solution ba ñu mën leena jël am fuñ leen denc am fuñ leen fat même buñ leen mënul fajj ñun dinañ leen topato di leen sang di def ci ñom li war waaw di ko yalla nak suñu nyom, ak ñom ndax li ñuy def ni wuñ ci dërëm waaw li bu doon liggéey fayeeku leneen lañuy wax nga bayyi sa lepp mu lér ni 1 franc munoo ko sey am mais yaa ci jaamu yalla te heure buñ ko défé rek mbékté la mbékté la contenté la jëm ji ñu yéssal ñun ñëpp ci waaw di sant yàlla rek di sant yàlla bu baax di wax ni tamit jaamu yàlla yi ñu bàyyi xel 77 190 77 67 fépp waaye gis malaat mental guddi mu sonn woo ñu si numéro bi guddi ak bëccëg heure bu mënti doon boo ñu woowee ñu ñëw fekk la fa dimbali jëmm jooju ngir jëmmi yàlla te yàlla rek tax waaw ndax boo xoolee dañoo jugee Zac mbaaw jaar fas mbaaw toppatoo fa benn jëmm ñëw fii jeg saaw toppatoo fi beneen jëmm te ñu nag ñoom ba guddi gi jeex ba suba ci 10 heures ndax heure bi 3 heures 27 kenn xalaatul génn di dimbali jaamu yàlla ah am na nag ñu koy def am na ñu koy def du ma ne amul am na mais yombul lii dafa yombul